dañuy door ak observateur mi xëy dikk ak ñun ci lu yoo xam ne am na ca palais de la république yéen bi nañu note de service la ñu génnee lépp nag daanaka Macky moo ko santaane ay coppite yu bare bare bare ca coppite ya journal bi nañu bokk na ci ay euh, audience yoo xamante ne ji doon na ko accordel ministre conseiller ak conseillers spéciaux yi yéen bi ne nañu Macky Sall leen wax ne léegi lu dul talaata ak alxames mu di mardi ak jeudi xëy nañu ko xamal mooy ay caméra surveillance yoo xam ne dañu koy def biir présidence de la république liñ ci jublu moo di lépp lu fa am ñu daal koy xam ba tey yéenekaay bi yamu ca ne observateur ñëw naak ñun ci loo xamante ne ji moom mooy pointage électronique di loo xamante ne ji képp kuy xëy wala ngay wàcc machine bi da koy enregistré nga xam ne danañ xam heure bi nga dugg ak heure bi nga génn foofe yéenekaay bi nañu nag noonee la ko président Macky def lu leen neex moom loolu du problème am turbine wax loolu ci biir nag am na nu mu ko gën a leeralee leneen loolu it euh, yéenekaay bi wax na ci moo di nee na moom président Macky Sall yooyu la kaddu mi ngi ko yëkkati ci euh, waxtaan boo xam ne séqoon na ko ak journaliste euh, tubaab ya nekk ca télévision bii di ay télé Macky Sall bari na lu mu fa wax bokk na ci wàllu croissance bokk na ci wàllu avortement bokk na ci wàllu Karim Wade wàllu Abdoulaye wadd en tout cas loolu lépp daal wax na ci yéenekaay yi ku ci nekk ak ñoom la nga xam ne moom nga bëgg a waxtaanee ci li président wax démb ak journaliste tubaab yi le quotidien ci li mu wax ci mbirum cour répression enrichissement illicite yéen kaay bi xëy ñu fàttali ne ñoom wàllu quotidien bi ñu fi dalalee Aminata Touré premier ministre Sénégal ba woon li nga xam ne loolee la waxoon ci xëy mu di ñu réformer ko maanaam jooyandi ko Macky Sall daanaka gis-gis boobu la am ci moomi la mbir las nañu Macky démb ca itale du dara loo xam ne bàyyi na ko président wax na lépp ñëw na ci mbirum Karim Wade nee na yéenewu ko kaso waaye nag comme mbir euh, a

ba noppi nag tegal ñu ci sax ne lu aju ci kilifa yi réewum Sénégal weddi nañu lim boobee nga xam ne FMI na ko Pape ma joxul stade yéenekaay ak Sadio Mané ma fa nekk mi ngook yéenekaay bi xëy ñu xamal moom Sadio daal jamono ji mi ngi wane boppam bu baax a baax ndax démb max bi woon diggante Southampton mooy fa muy football ak Liverpool Sadio moo tax gars yi mën a dugal a kon match nul beneen bi ci topp yéenekaay bi nañu bu ñu moytuwul bu saison bi tijjiwaatee wala bokk ñu egg ci mercato bi Sadio dana jógee fa mu nekk ndax fi mu nekk nii Pape jàppal jar na fanweeri milliards ak juróom benn yu teg juróomi juróomi téeméeri million yu bëri yoo xam ne sax dama ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye mu nekkoon revue de